Rokhaya Ba moom la Macky Sall doon doxaan di ko tëddee guddi ak bëccëg Rokhaya Ba newoon itali am fa jëkkër ba am moom ñett ci doom ñett ci doomi jigéen jëkkëram ni ngi may dégg ci laay normalement bu fekkee ni ngi dégg wala dana ma déggi suma ma dégloo ëllëg dina seede li may wax am ak moom ñetti doom Macky Sall di suufu jabaru jàmbur ci suuf di ko tëddee ba jël ndaw si nga xam ne jàngul jongul xamul dara nommé ko consul général du Sénégal à Milan moom Roqaya Ba Roqaya Ba dem monté ab dossier ak benn banque privée italienne nañu dañuy jënd siège consulat bu Sénégal ba nekk mais dañ koy jënd def montage financier booba Amadou Ba moo yor ministre des affaires étrangères bii ñuy wax tey yëf yi banque ba taxaw coow la def ci mbuxum commission yoo xam ne Macky Sall da ko fa ne ces comme gelam na da koy tëddee mooy Nourou Mbodj nappaaje kucc kucc kucc kucc mu ne ko ces génne ko fa ndax coow la yaakaar da koy yóbbu wala mu bàyyi ko parce que xamul dara ay caga a promotion ay caga ko jox ko mu rek war ci yëg ci sa kaw daal lay tëbu jox la post ba ci ambassadeur mu jëlee ndaw si Milan moom Macky Sall yóbbu ko Togo ci dëkku Ayadema daal di koy nommé ambassadeur kuuru woon nekk gardien ci ab kër ñu def la consul général ca Milan ak ni Milan rëy nga def fa tooxi ñu war la wàcce nëbb la Macky Sall yokkal la grade jëlee la ci consul def la ambassadeur fan Togo Lomé ci capital ba Macky nappaaje kucc kucc kucc kucc kucc ba xolam sedd tanoor ca Ndella Fall jaar ci suuf na ko ciix na ko ma kaay ma may daal di jël ndaw si gannaaw ba ko Macky Sall nommé ambassadeur ca ndaw soo su ma lay wax mooy Roqaya Ba di doomu Maguette Fall dem na Togo léegi jóge na Milan gannaaw tooxi duuna yi ambassadeur Tanor Thiendella Fall di ko jël ci suuf di kucc kucc di kucc kucc ba yàgg mu takk ko takk suuf bi mu ko takkee sakk suuf ñuy kucc kucc ba yàgg ndaw si biir wala am doom daal di ëmb Tanor ne ko yàqal ëmb ndaw si yàq ëmb bi ndaw si yàq ëmb de di dem ak ñëw di jóge Dakar di dem Togo di ko fa fekki ko mooy ambassadeur bi waaye am leneen lu ci tàbbi Tanor Thiendella Fall di directeur du DGE ak Rokhaya Bah consul Sénégal bu Séné bu Sénégal ambassadeur bu Sénégal ca Lomé ca Togo ñooy teg seeni dil de takku suuf ñu dem ba yàgg nag mbir mi feeñ coole na ci kër gi.